mbokk yi nga xamante ne bii yéen a janloo ak ñun ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu ànd ak ngeen di ànd ak ñun ñu fas yéene ñëw nag ak euh, mbokk yi ci loo xam ne ni am nañ ci mbégte lool ci ànd giñ ci ànd ak yéen muy ñetteelu édition ziyaara bi nga xamante ne bii Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal mu Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba moom moo koy def ca njabootuk turandoo mu tedd bi nga xamante ne bii moo di sëriñ Serigne Seri di ay dara ma nekk ca Kankan ca euh, réewum Guinée waaye nag xam ngeen ne atum ren moom sëriñ bi ni mu ko baaxoo defee fii la bàyyikoo ci biir dëkk bu sell bii di Touba ngir wutali euh, gox yi nga xamante ne bii daana fa jaar danañ ci dikkaat ak yéen ci kanam tuuti waaye xam ngeen bu ñu seenee jumaa ju sell ji xam ne waajuram wu tedd wa di Cheikh Madul Fadal def na ci liggéey bu am solo. waaye tamit dana fàttali jëf ji nga xamante ne bii Serigne Serif jëfoon na ko digganteem ak Cheikh Modou Fadal tey sababu ziar bi nga xamante ne bii fedd li jéego yooyu fedd li cant googu moom la Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Modou Fadal di defi ji nii ca Guinée. waaye xam ngeen ne gannaaw bu mu jugee fii ci dëkk bu sell bi di Touba nag daa dinay jaar foofu foofule ca Bamako di réew Mali ndax xam ngeen ne. at mu jot daf ci ànd ak taalibey Serigne Touba yi ànd ci ak jullit yi rawatina ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekkee foofa ca Bamako. waaye fii ci Bamako nag ñu teeru ko fi teeru bu am solo mu di njabootu Serigne Touba gi fi nekk jullit yi fi nekk ngir dalal ko waaye waajal nag lépp lu jëm ci bis boobu nga xamante ne bii. moom sëriñ bi ma ngi koy amal ca Kankan waaye di fekki nag kenn ci njabootuk sëriñ sëri Fantama di ay dara mi nga xamante ne bii wëlëreew ku tedd ki la woon dana feeñ tuuti ci kanam waaye wëlëre Cheikh du Fadal la woon te ñoom seq nañ lu bëree bëri loo xamante ne bii euh, dana leer ci biir jataay yi nga xamante ne bii danañ ko amal ci kanam waaye daayira yi nekkee fii ci Mali nag ñoom itam am taxawaay bu am solo ci liggéeyal Serigne Touba am taxawaay bu am solo ci ànd ak sëriñ bi ci lépp loo xamante ne bii dana tax ziar boobu dana tax bis bi nga xamante ne bii moom la ñu dëkkmal daal di yemb waaye nag ci kaw loolu itam ñu dalal ko dalal bu am solo moom sëriñ bi nag am na ay kàddu yoo xam ne sax jot na ko faa yëkkati ngir nag jëm ci waajal li nga xamante ne bi moo di yoonu kankan wi waaye soññ nag taalibe yi donte fu ñu toll sax ñoo ngi ànd ak Pastef waaye fàttali nag yaakaar naa wàññiwul dara moom sëriñ bi waxtaan nag ñoom ci lépp loo xamante ne bi ay matuwaay la yu ñu war a jël ci yoon yi moo xam ci wàllu kayit yeeg yu ni mel ngir yombalal ñi nga xam ñu fekk seen liggéey waaye nag la ñu xamoon ci yoonu murit itam muy ak taalibe pësteef ak tegu ci yoon loolee tamit mu bàyyi loo leen ci xel bu baax a baax ba yaakaar naa lépp lu war ci fànn googule jël nañ ci ay matuwaay bi عليه سفاة القبور وفي الخلق من رضوانه ومكنه دليلا به الناس صدور القبور لولا حبيبا xam ne ci ngeen ne fii ci Bamako nag mbokk yi kenn ci njabootug Serigne Serigne Fanta Madi Aidara daf fee nekk mu di soxna ba ay dara di ko xamante ne bi itam ku ràññu la ku ràññiku la ci ak njabootam tax na kii di Serigne Serif Mbacke moo Cheikh Amadou Fadal. egg fa nag jéego ziar ànd ko nag ak ñenn ci taalib yi nga xamante ne bii ñoo nekkee fii ci ko muy jotaay boo xamante ne bii lu bëri bëri feeñ na ci ay njariñ ndax moom soxna si mu ngi fàttali diggante waajuram wu tedd wa ak ku tedd kii di Serigne Touba Cheikh Bamba waaye diggante waajuram wu tedd wa ak Cheikh Ahmadoul Fadal mi nga xamante ne bii euh, la mu seqoon ak moom moom la Serigne Serif mii di fedd li di wax itam. lu am solo ci ay may yoo xamante ne bii ma nga woon ca waajuram wu tedd woowale di sëriñ sëriñ Fantama di ay dara ndax ci biir waxtaan wi sax mi ngi ah, xam ne ne ku tedd kooku daadaan def gannaaw tàkkusaan gu ne dana dem ca barabu waajuram ba waaye bu duggee ca biir barab ba nga xamante ni fa la ñu denc way dawlu ya day nuyoo te ña tëdd foofee daañu ko fay fay goo xamante ne bii ñi ànd ak sëriñ bi sax dañu koy dégg kon yaakaar naa loolu lu am solo la. ko jɛ dɔ bɛ yen a mako bɛ dɔ bɛ yen. Pastef bi nga xamante ne bii nag mbokk yi daayira yi nekkee fii ci Bamako wone nañu ko ràññiku na lool ndax mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo lëkkaloo ci daayira yi di njabootug Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba wane nañ ci pësteef bu yaatu lool ñenn ñi fa la ñu fanaan sax ci waajtaay yi ngir waajal ay xéewal yoo xamante ne bii daañu ko jox ñiy dem waaye ñii dem itam ñu ci bëri euh, fajar lu mu teel teel teel fekk na leen fa ngir yoon wi ñor gu mu leen ñor waaye liggéey bi nga xamante ne bi ñoo ngi koy ànd ak sëriñ sërif itam ñor gu mu leen ñor loolu yaakaar naa lu mat a bàyyi xel la am lu am solo loo xamante ne bii tamit euh, feeñ na ci yoon wi muy yokkute ndax dañuy wax ne Serigne Touba tànki kanam la am amul yooyu gannaaw ba tax na euh, atum ren yaakaar naa bu ñu gisee li ñu topp ci ab lim ci ay daamar yaakaar naa euh, fawxa na la amoon daaw muy lu am solo loo xamante ne bii watay ndaw yi rek bu ñu ko doon wàññi yaakaar naa dina toll ci fanweer wala lu ko ëpp bis yi tamit ñoo ko gisandoo.

gis ni li nga xamanteni ñun Sénégal euh, alliance bi mom yalla yalla ba ñu am ndam tous ensemble le Sénégal en mouvement tay Serigne Fanta série, euh, li ma wax caravane comme nous ko waxé euh, bus la 30 voitures juumuloo 30 manam 30 voitures. Baraka kon mbokk yi ngi dina leen wan yoonu Kanka ñu bàyyi ko fii ci Bamako jëm Kanka ak caravane bi nga xam ni mooy caravane bay fay Chérif Fanta Madi bor ba mu lebaloon Cheikh Mamadou Fadel mu def ko ci jumaa ji muniran lil islam anta muniru salatun wa taslimun min allahi samadan ala xayri man tuska ilayhum درا محمد شفيع الذي كل يقي وينير ما لالي والأسهاب وفي الهدى معا سبسب عني كل من سيدور على خلي ستي في رضوان ربي كما أرنا في الخالي حين يسير waaw amoon na ay jafe-jafe. li ma gisee mooy. wallaahi al azim ba ma demee wax ko ko guddi àjjuma googu. ba ma tëddee ba guddi ba ma jógee def samay ñaan ba ma xëyee bañ toog 11h lañ ma woo ne ma ne ma ah garab yi de jeex na. te dem naa ba ci ba ci sëriñ bi ne ko man day vraiment dinañ ko def mu ne ma non kenn du ko def ndax dëkk bi dafa yëngu ma ne ko dinañ ko def ba ma xëyee 11h laa dem toog ñu ne ma garab yi jeex na te ngoon nga laa delluwaat mu ne ma ana gars yi man ko ñu ngi ma ko mu ne nañ ñëw lépp jeex na ma ne ko ma ne ko alhamdulilah jërëjëf sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa ay mbiram moom rek ko xam moo ko yore boppam kon boog tàkk waaw waaw beneen yoon mu bu nekk national international. international très bu déwénee bu neexee yàlla dina nekk international ndax déwén waxuma la waxuma la kankan mais ña nekk sama kër Sénégal jigéen ñëpp dinañ ñëw fekk jigéen ñi nekk fii kii sama mag la ñoo bokk ndey baay mooy sama taaw yaay ba mu ko déggalee ñëw ànd ak sama doom bu jigéen sama taaw ñëw jàppale ànd jigéen ñi nekk liggéey ñu liggéey seen tubaab maa ngi ñaan nag ñu fi ñu ñépp yaa na sëñ Tuubaa fay ndax ñii fi ñàkk dem ñàkk nañ ci jumaay loolu moom wér na ndax sëñ Tuubaa nee sama jumaa ji ku ci feeñ doo nëbbu àdduna doo nëbbu àllaaxira sant naa ñëpp am naa ci sama mbokkum taalibe yi fi nekk bu àlla caw maa ngi si la ñoom ñëpp ku luñ juum ñoom ñëpp maa ngi sant leen gërëm wax dëgg yàlla ak ku ñuy wax Malick Gadji am na koo xam ne ñoom juróomi saako ceeb la ma yónnee te wax dëgg yàlla du murit xor ma fay la tudd dafa ma ne ah Matar ma naa ah, mu ne ma juróomi saako ceeb nañ ma ñaar moo xam ne ni bëgg yàlla أماني إلى خير كريم مسير تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالغروة الوثقى التي هي النور به سرت من ربي لربي موحدا وعن النسارى والبهور تمور والكنز والكبريت والسرى الذين على والسطور كتاب كريم من كريم مكرم لآت كريم للقديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد لآت مجيد gannaaw bi ñu jógee fii nag mbokk yi ni leen ko waxee woon léegi taalibe def taxawaay bu am solo ci wàllu waajtaay wi ngir nag wutali dëkk boobu nga xamante ne bii moom moo di Kankan ngir fekki njabootu Serigne Serigne Fanta Madi Aidara gi xamante ne bii moom moo fa nekk nekkoon itam wala réew Cheikh Amadou Fadal lu bëree bari ñu seqoon ko loolu nag euh, di lu am solo loo xamante ne bii yaakaar naa yoon wi. Euh, gannaaw yoon wi gannaaw bi mu doonee nag euh, yoonu xéewal ak yoonu lislaam yaakaar naa yoonu kóllëre la waaye tamit nag yoonu soññee la ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ndax euh, bi ñu euh, déparé ba nit ñi àggee ñoo ngi ci lépp loo xamante ne bii rek lu neex suñu borom la waaye lépp loo xamante ne bii liggéeyal Serigne Touba la moo xam muy alxuraanu karim moo xam muy xasiday Serigne Touba moo xam muy soññante noonee rek lañu ñu nekkee ci yoon yi ba ba ñuy agsi nag fi nga xamante ne bii. moom moo di frontière bi waaye tamit muy euh, xéewal yu mag a mag yoo xamante ne bi feeñ na fi ndax itam ñi nga xamante ne bi ñoom la ñu fekk si fii ci frontière bi xam nañ ne sëriñ sërif mii de ak ñi nga xamante ne bi ñoom la àndal lislaam rek moo leen ñor waaye liggéeyal sëriñ Tuubaa rek moo leen ñor ndax lépp loo xamante ne bi waxtu julli la wala alxuraanu karim wala lépp loo xamante ni bi jaamu yàlla la donte ñoo ngi ci frontière bi di nëggandiku li nga xamante ne bi moo di formalité yi ñu war a def terewul nag ña nga ca muy xéewal goo xamante ne bi Euh, feeñ na sax euh, ci liggéey bi waaye tamit yaakaar naa ñooñee nekk ci réewum Guinée lu ñuy yëg lay doon ndax njabootu Serigne Touba fépp fu ñu teew fu ne yokkute rek moo fay feeñ lu ni mel tax na lu toll ci ñaari kaamila alxuraan yoo xamante ne bi wàcce nañ ko fa ci njiitul Serigne Serif Mbacke nga xamante ne bi moo jiite woon njàng mi lool yaakaar naa lu am solo la mën naa aar réew mi waaye mën naa aar Sénégal mën naa aar itam àdduna wërngal këpp wala fépp foo xamante ne bii ab julit ma nga bashirin saana kulli maaraye maje Nafas léegi mbokk yi fii nag fi la ñu tàmbalee dugg si ci Kankan gannaaw nag euh, yoon wu yàgg woo xamante ne bii euh, amal nañu ko ànd ak Serigne Serif ànd ak taalibe yi ànd ak mboolem ñi nga xamante ne bii yoon wi ñor na leen muy diggante boo xamante ne bii euh, mat na ñetti téeméeri kilomètre ak ñaar fukk yaakaar naa loolu yoon wu xëcc la waaye li muy xëcc-xëcc terewul sëriñ bi ak ñi nga xamante ne bii ñoom la àndal mel na ne soriwul ci ñoom ndax yéene ji nga xamante ne bii am nañ ko ci waaye euh, boo dégloo kàddu yi nga xamante ne bii Serigne Mourtala Thioune na ko léegi day nekk soññee waaye nekk itam firndeel rek li ñu doon wax léegi. noo ngi nii tey di dugg Kanka gis ngeen mbooloo mi nga xam ne nii ñooy waa waa daayira Touba Kanka ak daayira Touba Konakiri ñoo fekk sëriñ bi ci buntu dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne moom la sëriñ bi àndal di teeru leen ci buntu dëkk bi noo ngi nii jëm kon kër sëriñ Fanta Madi gi nga xam ne. motax serigne serif Sërif sunu jambar ji jog tay no ngi delu sant yalla bu baax nak ndax xam ngeen 2011 ni lañ ko defé won 2014 it noonu lañ ko defé yalla dimbali no ba ben ex 2016 diko defat kon no ngi sant yalla sunu borom bu baax a baax di ñaanal serigne serif Mbakke mi nga xamni moy taxawal ziar bi di taxawal bis bi moom mboolem ñu koy andal di wa Bamako di wa Conakry di wa Kankan yalla bo leen jappale dimbali leen ba li nga xamne mom lañuy def ñu làq ci ngeerumul Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamne ne moo tax ñu def serigne sërif dal tay dund lat na li nga xamne mo taxon sunu serigne Tuubaa wax ni sur man tuhibbu wa in shattat bika daru wa hal min dunihi shahlun wa awxaaru la yamnaannaka bu'dun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa wa sawaru ku eh, sàgg bu tedd bobu tabax fi ci kanka muy serigne eh, serigne fantamade bi nga xamni mom lañuy defal ci ziar bi mom lañuy tollo ni mom ngeen di seen ñi nga xamanteni ni dar auto bi nga xamni ci la serigne serif Mbàkke nek moy bokki yi nga xamni ne nañ Conakry dag distance bu gat bu gudd bo xamni mo gëna gudd sax ñun liñ dag fii Bamako eh, dara taxul li ngir fekke ci bis bi ak jox bis bi dayo bi nga xamni mom la tollol muy loo xamante ni euh, tey jii ndamul Serigne Touba la xam naa ni bis bi nga xam ni Serigne Touba doon wax naan xusuur yi xalat wal ahlu anni tafarraqat li mat illadi an wu madiw xasiru bis booba de tey bis bi fay na ko. dégg nga gis nga sëñ Serif noonu. mi ngi dugg ci pajero bu bula marine boobu mi ngi dugg ci kër gi nga xam ni fii mooy kër sëñ Makhtar Niass. fii nag mbokk yi gannaaw bi ñu dugg see ci dëkk bi di Kankan fi la daayira Serigne Touba bi nga xamante ne bi moo nekkee ci Conakry ñëw. ànd ak waa Kankan ànd ak mbooleem taalibe yi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk ci réew mi di réewum Guinée ñëw teeru sëriñ bi waaye ànd ak moom yi nag waaye ànd ak moom nag euh, feeñal seen yéene ci liggéey bi nga xamante ne bii sëriñ Serif mu ngi koy yëkkati di ko jébbal njabootuk sëriñ Serif Fantomadi di euh, moo xam muy zikrullah moo xam muy alxuraanu karim moo xam muy xasaayit yi sëriñ Touba lépp loo xamante ne bii danañ ko gungee kilifa lépp loo xamante ne bii yàlla na ci liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou rek. ñoom taalibe yi ñu jël ci ay matuwaay yu am solo fii ci kër Serigne Makhtar Niass nag ñu gisati ba tey Pastef yi nga xamante ne bi taalibe yi ànd nañu ak moom yëkkati zikur la waaye tamit teeru sëriñ bi dalal ko dalal lu am solo muy feeñal rek mbégte mi nga xamante ne bii am nañ ko ci moom sëriñ sërif mi waaye am ko ci waajuram wu tedd ba di Cheikh Modou Fadal waaye rafetlu bu baax itam jéego yi nga xamante ne bii mu ngi koy def te dara taxal dul fedd li kóllëre ga doxoon diggante Cheikh Amadou Fadal ak jëm ju sell jooju di Serigne Serigne Fanta Madi gannaaw nag euh, bi ñu dalalee Serigne bi fii ci kër Serigne Makhtar Niass xam ngeen ne noonu lañ ko yendoo noonu lañu ko fanaane mooy ci guddi gi ñu def ndaje mu am solo moo xamante ne bii la fa nekke woon du lenn lu jàng alxuraanu karim te li ci gën a yéeme moo di sëriñ sërif mbàkke mi nga xamante ne bi moo jiite liggéey bi donte yoon yu bëri na ay coono waaye tamit nag taxul itam benn yoon mu bàyyi alxuraan ji wala euh, xasida yi nga xamante ne bi euh, moo ko taxoon a jug waaye liggéeyal sëriñ yi nga xamante ne bi moom moo ko andi woon fii ci Guinée ba tax na ab lim bu takku jàng nañ ko ci alxuraanu karim war a toll ci juróom-ñaari kaamil yoo xamante ne bii jàng nañ ko dolli ci ñaar ya nga xamante ne bii limoon nañu ko muy juróom-ñeenti kaamil yoo xam ne yaakaar naa loolu rek euh, firndeel na li Serigne Touba doon wax li ko suñ borom defal ci alxuraan waaye fonk nga xamante ne bii Serigne Touba fonk na ko alxuraanu karim ba wax ci lu bëree bëri bokk na ci kanzul kitaabu wal xadiisu wal adab laa jamxu fiddatin wala jamxu sahab yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta xablu tabibi loolu yaakaar naa feeñ na ci liggéey bi nga xamante ne bii Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal def na ko fii waaye kuréelu mawlid itam noonu lañu ko fanaanee nga xamante ne bii moo di kuréelu Bamako itam eh, jàng fi njàng mu am solo zikrulaa itam naka noonu eh, mbokki taalibe yi eh, feeñal nañ ci seen pastéef waaye tamit Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal moom nag moo jàngal boppam xatmu bi mu nekk lu am solo loo xamante ne bii loolu yaakaar naa soññe la ci taalibe yi. وذهاب أنت البديع الذي ما شاء رحمانا اللهم اجعله أن يسرك لي عن زعبنا يوم أو شاد ودليلنا في الحياة بأولازم ما ترضى اويت أويتني بعد ما داخل الفعاد وسل فسرمدا لي جنا وعنزانا أسلمت وجهي إليك اليوم ساقدمي واجعل لمن خلوت له كعبا وأزانا سدال عفوك على قلوبنا ومن علينا بستر لخدمة من تبزيره درر الأهداء عمزانا محمد الخير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو بيانا وجي صلاة بتزيم الله أبدا ولي بيانا وعني يعني ربي بتكريم دون أنا في البر والبحر سد رزقا وتكلانا ملكني العام يا واب فوق رجاك kon nag mbokk yi léegi ñu fas yéene dugg ci li nga xamante ne bi moom moo di ziar bi gannaaw ba ñu bàyyi ko ca barab ba ca suba sa nag ci la Serigne Serif Fanta Madi moom Cheikh dul Fadal ànd ak mboolem ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo di taalibe yi mbokki jullit yi nga xamante ne bi ñëwoon nañ itam ngir jëmmi bis bi dem nag ci ki nga xamante ne bi moo fi nekkal sëriñ sëriñ di ay dara muy jataayu ziar jataayu fedd li kolere jataayu saafonte boo xamante ne bi dox na ci diggante ñaari kilifa yi waaye xam ngeen ne nag préfet bi nekk fii ci Kankan di Abdoul Aziz Diop ànd ak délégation bu am solo mboolem ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk ci administration bi tamit liggéeyandoo ak ñoom ñëw nag teewe jataay bu am solo bi nga xamante ne bii euh, Serigne Serif Mbacke mi ngi koy seq ak euh, jëmm ji nga xamante ne bii moo fi nekkal Serigne Serif Fanta ay dara ci kaw loolu nag euh, am na kàddu yu am solo yu tukkee ci Serigne sërif jëm rek ci préfet bi ngir nag fàttali ko Euh, yéene ji nga xamante ne bi murid di am nañ ko ci liggéeyal Serigne Touba ba tax bu ñu amoon kër Serigne Touba fii ci Kanka daañ ci euh, def lu ñu mën ngir liggéey ko waaye tamit euh, muy loo xamante ne bi mbooleem taalibe Serigne Touba yi dana leen jàppandal liggéey bi nga xamante ne bi ñi ngi koy defal ku tedd ki moom préfet bi itam wax na kàddu yu am solo muy saa su jotee bataaxal bi ñaari fan gannaaw bis bi mu ko jotee dana jàppandi muy lu am solo loo xamante ne bi xéewal na kon gu dolliku ci liggéey bi nga xamante ne bii Serigne Serif mi ngi koy liggéey fii waaye wax na itam sax ne yoon wii kat saa su ko yëgatee dana ci def kéem kàttanam ngir gàttanu leen waaye fexe ba gën leen a yombalal dugg bi ci réew mi fexe ba gën a gaawal lépp loo xamante ne bi danañ ko lijjanti ci wàllum kayit loolu nekk lu am solo kon waaye nag fas yéene ñëwaat ci kàddu yu am solo yoo xamante ne bii dana tukkee ci kilifa gu mag gi fi nekkal Serigne Serif Fanta Madi Aïdara. Euh, je vous faciliterai toutes ces démarches administratives. Et encore une fois, merci. li nag di jataay bi nga xamante ne bii moo dox ci diggante Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Ahmadoul Fadal ak ki nga xamante ne bii moo fi nekkal turandoom wu tedd woowu di Serigne Serif Fanta Madi Aidara muy kàddu yu am solo yoo xamante ne bii moom sëriñ Serif Mbacke ni mu ko baaxoo defee rek yeesal na euh, kóllëreem ci euh, digganteem ak kilifa gi fi nekk waaye euh, di sàkkuwaat ci moom itam. Euh, ci màggalu Touba gi euh, muy teew comme ni ko yeneen kilifa yi di defee gannaaw loolu itam nag moom sëriñ bi nga xamante ni moo fi nekkal sëriñ Serif Fanta Madi Aidara mi ngi nettali diggante sëriñ Touba ak euh, sëriñ Serif Fanta Madi Aidara waaye diggante Cheikh Amadou Fadal ak jëmm ju sell jooju nga xamante ne bii moom mooy waajuram bokk na ci gannaaw bi mu yëkkatee kàddu yi cant ak ngërëm mi ngi xam ne ne am nay jamono. am ku ñëw ci Serigne Serigne Fanta di ko xamal ne ku tedd kii di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba na waaye daf koo xamaloon ne ko su làqu woon yow mii dooma ko wax nee na ca déwén sa nag ci ah, ndaw ñëw ci moom te wax ne ndaw loolu ñëw ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa eh, sallam moom moo ko yónni di ko xamal ne ku tedd kii di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba eh, làqu na ñibbi na ah, àjjana muy kéemtaan yoo xamante ne bii lépp rek day firndeel kon. digënté ñaari kilifa yi kóllëre gi nga xamante bi dox doxoon na seen diggante waaye liggéey bi nga xamanteni bi doon nañ ko liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa doon ko liggéeyal suñu borom nga xam itam umpante wuñ ci woon يبوما كل فين نسام البمبلا فما على ولي على بطل ده فما نسام البمبلا كمر من فن ده وباقي فما نفجوتو ده من بني أنا ولا في ولا كجو ما يمول فلا ترى ولا ترى ولا كجو وجيلي الكسف والتسخير دون عنا ولتكفني سرمدا جعلا وقسرانا فجاب أبلي فتى قد يري غجبا يا قرعاد غدا خمرا وعيرانا jërëjëf mbokk yi kon lii mooy tukki bi nga xamante ne bii andiloon nañ leen ko ci atum 2016 mu di tukki bi Serigne Serif Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal doon amal dem nañu Mali gannaaw bi ñu bàyyi ko ci dëkk bu sell bi di Touba dem itam euh, Kankan Euh, muy lu am solo loo xamante ne bii gis nañ liggéey bi ni mu yaatoo ak yokkute gi nga xamante ne bii am na ko mm, sëriñ bi nag ci turam ñi ngi sant mbooleem mbokki taalibe yi nga xamante ne bii ànd nañ ak moom liggéey bi sant mboolem ñi nga xamante ne bii rek ànd nañ ko ak moom bu ñu limee njuumte mën nañ cee fekk waaye ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu sëriñ Serif di leen ñaanal jàmm ak di ko sàkku ci yéen di leen dig daje ëllëg itam ci beneen jataay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بنا وخلد فيك بشرانا ملكني اليوم شيئا لا يفارقني من المزارات في دار جيرانا عليك وصني بأبكار أجيب بها من الفيود الذي تنزب في دانا للسعد ومن فتوعات الأكوان